di leen ñaanal nee na dafay ñaan Serigne Fallou Mbacke fay la ci kattanam mbaaxam parce que niñ ko yeween nee na Serigne Fallou Mbacke rek la gëm dinañ ciy duggee dafa doy waar il faut ñu waxtaan ci ci performance bi ndongo am ci wàllu wér ndongo ku ne xam ne ndongo rek bind lépp ci xel bi la nekk macha allah dañuy ñaan yàlla xel mi gën a wér rek dinañ gën a waxtaan ci fànn boobu naka ngay agence vous êtes en direct sur la chaîne télévision bëgg Ndongo TV international la. si sag yooyu. waaw parce que saa su ne Ndongo am na lu tuuti lu mu mën a dolli ci benn morceau. waaw kooku du artiste yëpp ñoo ko mel. may la ci nit ki euh, dafa doon benn surprise pour yow surprise bu doy waar. Mm-hmm. salaamaaleykum. salaamaaleykum yaa ngi Ndongo Lo. waaw. Saliou Sène Saliou. ak sa salaam Diallo. dal la jéem. waaw man day mënuma nelaw sëñ bi. dëgg la. ndax yow moom saa yoo woowee ku tedd ki rek. Hmm. ma jooy. ndax yow da nga bëgg sëriñ bi te dëkk lu ci yow. waaw yow taalibe la. Hmm. ndax boo demee ba jannatu baa nga dem ba kër Cheikh Saliou Mbacké. suuf tànk yi ñëpp la bëgg. dëgg la man man dama waxantu ndax ku wax ci rajo day wax Serigne Saliou dëgg la ndax damay ñëw ko Serigne Saliou xale yi di ma a ànd nangu lool. dëgg la nga bëgg Serigne Bamba. ma tase yow fu nekk Paris Hollande Angleterre fu ma tase yow sëñ bi rek la waxtaan. dëgg la loolu dëgg la ma man. bëgg naa nelaw lool waaye damay dagg samay nelaw woola félicité la lu la wax nga jàpp ndax ki nga yaakaar muy Cheikh Fallou Mbacké mooy Fallou Fallé buy dégg lu ragal man yaay sama woykat Mbacké Cheikh Fallou bu yàgg dama doon na aw ma woykat jàngkat laa am muy xaadim géey mais su may dem bay am woykat tey man ba salam dia léegi laay toog ci kaw baax ya baax kon lay dégg ma ci yàlla moom da nga baax Cheikh kooku dafa baax ñëpp bu yàgg lool waaw bi may woo ci ñeeñe boobu di ma invité. waaw boobu dara dara ko dara. vraiment boobu dara ko dara bi may woy tamit Papa Ndiaye maa la bëggee. bi ma ko njëkkee ravin moom moo jug fi mu toog. may ma xaalis bu bari def ni booy dama bëgg nga way li nga wayoon nga wayaat ko laa bëgg nga wayaat ko léegi waaw loolu waral mën naa ni li waral mbokk ci kaset bi moom ci la defe naa ne euh, dimanche jot ngeen du doy waar fële ci ci ci ci ci waaw euh, defe naa euh, non Alizé mercredi ah Salam Diallo Mbaye Dieye Faye ndongo beneen beneen beneen affaire la waaw même ñëpp fu ñu tëggul defuñu la moom moom vraiment yarula ko am ma man ku bëgg a fecc moom mooy dafa bëgg yaayam. waaw nangu la muy doomu yaayam. waaw <laughs> gis nga nag boo commencé dugg ci domaine yaayam léegi mu jooy fii ci rajo bi émission tàmm na rajo bu mu dem ñu wax yaay ji mu jooy. waaw ah, ceeb waaw mu salaam. non booy bu dafa daal waaw dëggantaan dëggantaan na kontaan yaa ngi déglu maa ngi si maa ngi. waaw incha naa nag. mais salaam yow kay xaar boobu léegi gisuñu la. ndongo. Hmm. jox ma addiya sëñ Sall aji aad yi mbir du jeex balak maaram ndax say mbir du jeex borom ndongo yi sëriñ saali ku dem ba ca moom mu teeru la teral ndongo mi du nu yalwaani maam de xotal yëre di leen solal mbake gaal gaay indi yëre yi sëriñ saaliw moo bëri yërmande boo demee ba tuuba nga jënoog lamp faal mbàkke ma nga ca ndongo ya ma nga ca waaw li nga xam ne ni ñu ko ndigge moo neex waaw boobu moo tudd ndigge barke baay barke baay barke baay dafa am solo nga wax mooy muy lu am solo trop ci wax nag loo xam ne lu mat a bàyyi xel la da nga koy jël morceau bu am sens tuddee ko jàmm

ku nekk dafa bëgg sa morom parce que Papis mënu ma ko fay seexu ndax sa première soirée live laa ko joué à cause de Papis Konaté ma koy ñaanal moom it xamoon naa ni dina tekk ci musique bi quoi. xol bi moo xol bi moo rafet. xol bee rafet Papis boo xam ne benn baat sax mu jooy. dëgg la Papis bi may répété la ni ma groupe laa lay formel bi ñuy répété. sans affaire bi génn. vous êtes en direct sur boobu góobu sax mën naa taxawal groupe. papis di ma woo guddeeg bëccëg kaay répété ut na ay musiciens bi ma ñëwee ñu répété su première soirée ñu def ko live bi déew papis xar ci bakkanam ñu naan du dem mu topp ci di ñafe moom mënu ma ko fay mun naa ni groupe jàmm papis konaate moo ko formé ci kàttanu yàlla. Mhm. waaw. Euh, te waaw mën nga ko wax quoi yéen ñaar yéen a bokk affaire a a moom côté boobu <laughs> <laughs> ay. waaw moom Jules moom daal Jules gars de cour moom moom mooy jëriñ. ay seex lañu. waaw benn lañu. waaw wax nga dëgg de loolu dafa mën ci daal mais nag Ndongo def naa il faut gars yi ñëw tey euh, découvrir Ndongo live parce que live Ndongo. beneen beneen dimension. Ndongo jot na fi génn Sénégal dem ci réew yu bari. ñun hmm. ci Europe ci États-Unis euh, Ndongo say soirée ci unis Euh, li ma leer mooy diaspora bi lañ fekkee maanaam nit ñi ñëw euh, rawatina Sénégal yi vraiment yi aussi dañu ñëw di seetaan nasaraan yi am na nasaraan yi di ko sori di ñëw di seetaan nangu loolu naka lañ ko gisee en direct sur la chaîne télévision Ndongo TV d'intervention mais ci bitim réew naka la jàmm waaw comme ci bitim réew ak fii rek mm-hmm. la ni may dundee fii noonu laay dundee bitim réew ni may nekk fii noonu laay bëggalee ñu nekk foofu di gërëm tamit sama fan si nekk bitim réew vraiment ñu may soutenir di ma jàppale mënu ma leen fay ñii di ma jëndal ay matériel di ma yónnee di ma sagal daal vraiment samay fans moom maa ngi ñaan yàlla yal na yàlla bañ a tax seen yaakaar. te nangu say ñaan. parce que jaam bi pexe yàlla dogalam waaw. nangu am lu raar aussi nekk nekk benn jour nangu xale la nangu nangu booy bi daanaka nangu nangu ñaata ñaata am na nangu ko. nangu loolu mi ngi toll ci ay vingt huit ans. vingt huit vingt huit ans jëm vingt neuf. wala amagul sax fanweeri at loolu xale bu ndaw nekk ci bis mm-hmm. euh, yàlla def ci barke euh, am lu lu xaw a spécial nangu chaque soirée gëstu benn artiste bi nag. maa ngi koy wax sànq mercredi Salam Diallo Mbengue fay ñëw ñëw ci xar mu nekk benn bopp bu doy waar. vraiment Ousseynou Dia fekk naa si soirée rabin. Baba Maal dëkk dëkk yi ñoom Baba Maal. vous êtes en direct sur la chaîne télévision Bokk Ndongo TV international. vous êtes en direct sur la chaîne télévision Bokk Ndongo TV international. non dëgg la vraiment. naka naka naka la bonne relation. non ni mu def ndax li ngay def la ñu bëgg rek wala da nga am relation yu spéciale. non dama pourtant ku ci ne mun naa ne xaw ma bunt këram sax. waaye ñoom mënu leen fay daal magu artistes yi nekk fii ñu ma tëddee rek ñoom ñëpp dañoo jaaxle vraiment ñun daal ñoo bokk ndey bàyyi quoi am na loo xamante ni képp ku ko gund sa diggante ak ñoom mun naa ne doo dem mhm. ñun suñu talent yi comprendre nga mhm. parce que ñoom ñoo yombal yoon bi ba pare ëlbatiku duñu sentir dañ ñoo bëgg vraiment dañ ñoo bëgg ci daax yi parce que ñoom it li leen doon ñaan yàlla dem ba nga xam ne ñun dinañ màgg gëm musique bi hmm. parce que ñoom bu bu ñuy way jamono dañuy way li may way naan bu njëkkoon ku way dañ lay génne hmm. ñoom ñoo fekk loolu hmm. dafa metti ñoom ñoo ba nga xam ne ñun suñu waajur yi dañ naan waa rayal ci diw ci diw comprendre nga kon dama leen di ñaanal ñoom it fi ñu bëgg yeggale musique bi yàlla leen ko yàlla jàppale ñu yeggale ko fa di ñaanal ñoom Baaba Maal Thione Seck Youssou Ndour Omar su suñu suñu mag suñu xarit ak Ousmane ménagère am di ñaanal ñoom Fallou Dieng ay Mbaye Ndeye Assane Ndiaye Mapenda di ñaanal ñëpp daal yal na leen yàlla yokku ñu ñu yegg fi ñu jëm. amiin loolu am na solo ñu déglu lépp. waaw bi nga gis naa ne mooy liy toj histoire na nga. waaw kii moom mooy kii bi. li ngay wax naan doomu tukulóor bu dee jooy duñ koy naxee doomu joolaa doomu joolaa ak yooyu. We make a better, make a fake géwél bu dee jooy dee ko nax ñaari deer big big yaay big yaay bu noppee fàkka doomu ñeeña bu dee jooy dee ko nax ngalam biir big big yaay big big yaay sa bala fang Njaay Maam Jaara Ja

Islam Muhammada Eh eh il ah ah hey, hey, hey! Hey, Sali Sali Sali Madior gudde na ku dégg woy bi xam ne triste na xam ne aussi euh, li artiste bi di woy daf ko sentir ci waxtu bi mu koy woy mhm. euh, Madior def naa ne euh, am na histoire yow ak moom dëgg la hmm. def naa ne auditeurs yi na mën nañu xam kan moo doonoon Madior ndax Madior doonatul waaw Madior Thioune sama rakk la sama jarbaat Cheikh Thioune mi ko jur Ndeye Dieng ko jur Ndeye ak sama baay Mbagnick ñoo bokk benn baay moom laay woy ti yaay bi naan bàjjan la jëng yaay jàppale ma yaay muy nit ko amoon jàmm ko xam Pikine ñëpp ko xamoon bëgg ko muy artiste boo xam ne ndeysaan maa ngi ñaan fu mu tëdd yàlla na ko yàlla yërëm ak mboolem ñu fa fekk ñëpp yal na leen yàlla wane leeg Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam kooku mooy. amiin la waaw yàlla na ko yàlla yërëm te. yéen xëy na ah fi mu jëm yàlla na ko gënal foofu fi mu jógee. amiin la defe naa ne booy boobu avenir la woon. waaw waaw ñu bëri defe naa ne sax am na chance Sénégal xam ko avant muy génn am na ndax clip bu super coof bu Alioune Mbaye Nder moom moo ci nekk mooy ki ñu doon wat noonu muy fecc fecc mu rafet moomu defe naa ne ay temps yu néew lañ ci teg rek yàlla moom ko ñi ñuy jaale askanam yëpp encore une fois voilà moo takkoon bretelles yi doon doon xale bu xoromu ah amoon feeling

solo li mu woy ci ay morceau bëri na mais nango deux produits la génne gum sur le marché yàlla def ci barke mu am ampleur bi mu am Sénégal yëpp di ko di ko coow nangoloo di génne dem États-Unis ñibbi si dem Europe ñëw tout le temps di tourner euh, nangoloo dafay dëgg trois fois dans la semaine ci ay discothèque bokkul ak euh, manifeste ak quatre soirées dans la semaine maanaam euh, vendredi bi yaa ngi yooyu mu nekk benn performance nangoloo li ma ko waxee nangoloo artiste buy bind Ah, droite yoo xam dañ koy jox ay texte ak yooyu lépp ci boobu la nangu buñ la seetaanee man am na occasion yu bëri seetaan sa soirée morceau bi ngay teg ci cassette bi boo koy tëgg liñ ciy dool rek yooyu ma bëggoon xam nangu sa inspiration naka lay demee naka lay ñëwee ndax luy ñëw la nii rek aspect ci sa xalaat may la rek wala loo xam ne da nga koo jàngal ba mu mokk en fait gaañu ñu na mu souvent xam nangu fan lay inspiré woo réellement. waaw ndongo vraiment moom maa ngi merci rafetlu question boobu nga ma posé Cheikhou di xamal ni nit ñi. lépp li yàlla yor. vous a en direct sur ma chaîne télévision Bëgg Ndongo TV international man foofu laa ko gisee vous êtes en direct sur ma chaîne télévision chaque jour boo woy benn woy boo tëddee am loo ci dolli. vous êtes en direct sur ma chaîne télévision Bëgg Ndongo TV yàlla mooy doxalee noonu ci doom yàlla may la kon may la quoi mën naa ni la yàlla la quoi parce que du ma jàng jaaruma école des arts hmm. yàlla daal mën naa lép moom la ko waaw parce que dama dama seetaan sa sa benn concert war naa am trois semaines léegi tropique hmm. am sa benn defe naa sa bassiste la am benn morceau rek bu neex mu doon woon ci première partie. waaw muy yooyu ñëpp ne gongo neex nay tuuti jékki-jékki dégg baatu lëngaloo ko dugg ci mu nekk beneen beneen style ba bassiste bi dafa mujj arrière dem taxaw. waaw continuer di gérer guitare bi yi. donc loolu yëpp du loo xam ne da nga ko répété da ngay sentir musique bi daal di ci dugg la mooy hmm. man damay hmm. ma am na nu may def. ba su may am way ci musique boobu day doy waar daal. Hmm. waaw. Euh, maanaam euh, donc musique bi départ rek. am nga am nga départ. kooku defe naa ne may la euh, dañuy dañuy déglu beneen boo xam ne it mu ngi parce que defe naa ne téléphone bi nu muy nu muy sonné ci suba ak léegi tubaarkalla macha allah. gaa ñi bëgg nañ jokkatu lango nga waaw ci Pikine nangalu ak Pikine. waaw dafa doy waar nga ñëwaatal ma sa diggante que nango tey jii nañ ko wax mm-hmm. ndar mais nango dafa jël boppam Euh, ndeyale ko Pikine. donte sax nongolo mu Sénégal la. waa mu bëgg la waaw da ngay gis maa yow ñoo bokk benn koñ. Hmm. juddandoo yorandoo xam nga lépp. Hmm. ñoo doon daje ngay anime mais way ci ngénte yeeg fu ne. gis ma daan bëggee da ngay gis kuy ngénte sax ni bu ndongoloo ñëwul man sama ngénte du neex hmm. day def mariage wax loolu. mbapat yeeg yëpp ñu ni ndongoloo. kon man mënu leen fay. parce que Seexu dama defe ne yenn artistes yi dañuy mbir mbir ni ñun ñi ni bëgg. ñun noo leen amee njukkal mais du ñoom. parce que koo joxul mu lekk joxoo ko mu naan solo loo ko yëree dundaloo ko. vous êtes en direct sur la chaîne télévision Bokk Ndongo TV International. vous êtes en direct sur la chaîne télévision Bokk Ndongo TV International. moom rek laa mën di leen ko delloo njukkal ñoom waa Pikine. Ah. ak waa Sénégal gépp comprendre nga di gërëm nag waa pikin bu baax vraiment kontaan ci ñoom. mënu leen fay daal. Mhm. waaw yal na yàlla dolli kon. Ah, parce que defe naa euh, ni ko jigéen ñi bëggee nan la ko góor ñi bëggee. mais nangu bon question bu bett la peut mais juste bëgg am bëgg am ci sa xalaat. jigéen jigéen ak góor ñi sa xalaat kat moo la ci gën a bëgg. sama xalaat ñoom ah. ñoom mën naa ni jigéen ñi ñoo gën a bëgg daal mais mën naa ni tamit sama moroom yi. nit ma bëgg mais nangu ni gars ñi def ci ginnaaw xanaa doo koy gis. sa kër non loolu ah. wala démb rek. maa ngi toog sama kër samay moroom jóge ba Caaroy Touba Caaroy ñëw seet si ma def kër ga lu doy waar vraiment lu ñoo xam ni dama yaakaaroon ne sax ñii bokkuñu si ñi bëgg ndongoloo. Mhm. bi ñu nee tëll gaara seen oto li ñu def kër ga vraiment sama rongoñ bi muy tokk démb teyuma ko te ñoom ñëpp say morom lañu. Mhm. indi seen teraanga gu bëri ñu dañ la seet si dañ la bëgg bi nga feebaree fu ne dugg nañ fa pour gis la. Mhm. ñu la gis ñëw nañ fii deux fois seen waa ni nekkoo fi. vraiment muy loo xam ni mënuma leen fay daal. te ay ñeeño indi ay cadeau yu yoo xam ni. maa leen di bàyyi ak yàlla. kay yaa ngi ci takk nii ah jaar bu nice bi ak euh, vraiment euh, chevalier bu doy waar macha allah. vous êtes en direct sur la chaîne télévision Beug Ndongo TV ah, international. ci baatu ndongo lool fii di waa Pikine may ko képp ku dëkk Pikine la banlieue attaque la ñuy wax. waaw voilà waa banlieue yëpp ñoo ko moom. ah tout d'abord Zof dama banlieue la <laughs> c'est pour toi aussi. Vous êtes en direct sur la chaîne télévision le Ndongo TV International. Vous êtes en direct sur la chaîne télévision Beubou TV International. ko jale bekaay jaga waa koñ bi yëpp atar bu bees daggu daan ah, vraiment yàlla na ko yàlla yërëm mer amiin waay li ngay woy ci moom laay woy ci morceau bi mère suk soxna mère soxna mère soxna euh, mère soxna waaw ñu ngi koy lay laa wax fii daal voilà voilà mère suk voilà moom laa mère soxna euh, voilà kon nag euh, dix heures jot na ba tegal trente six minutes téléphone bi ndongo macha allah am na sax ku ci nekk kii neuf heures ba léegi muy woote chaque cinq minutes ñu ngi jégalu xadi allo waaw xare ñu ngi jégalu de. ñu nangoo yegg si wul woon bu mu yegg si ñu dalal ko. waaw léegi nag ñu nangoo yaa ngi noonu. allo Ndongo soxna Khady. waaw naa def. maa ngi sant. ça va bien. maa ngi nii di leen bëggee rek. yow ak ay la bëggee. maa leen raw. Eh, ba yàlla nga fi yàgg tawee. amiin waay amiin. nga bëgg yàlla na ko sëñ Fallou defal. amiin amiin. Ndongo dama laa bëgg. dëgg la dëgg la. keroog gii laa woo. dëgg la. mu ngi dem sa kër dina ma jox sa numéro ma woote. Mhm. ndongo moo tax sonn jotuma ndongo ma nga bëggee maa leen raw wóor na yàlla yàlla nga fa yàgg taw amiin waaw yàlla nañ ko bokk yàlla na ko yàlla def ak suñu amiin amiin yàlla nañ ko fekk ak mboolem jullit merci jërëjëf. jërëjëf Khady merci beaucoup defe naa ne loolu doy na ci wàllu wàllu neuf ba léegi. waaw gis nga wax la ndongo dama la bëgg. non moom ndongo moom ay fan sam moom. lii moo neex. mënu leen fay daal. vous êtes en direct sur la chaîne télévision Bégu Ndongo TV international. vous êtes en direct sur la chaîne télévision Bégu Ndongo TV international. comme ni ko waxee nit ki fayuloo ko dara joxoo ko mu lekk joxoo ko mu naan. bu dee bëgg la am na am na fokkatoo aussi parce que wax am na looy def ci ci xol ñi nga xam ne ñoo lay déglu parce que Sénégal Sénégal bëri nay woykat mhm. euh, dafa naa yaa doon wax ci benn rajo ni sax euh, Sénégalais yi defuñu dañoo yeewul mhm. ku way lu neex dinañ la déglu ku way lu kenn xamul nag ñu tegal la ko te ñu yàq bu naqari donc loolu am solo donc bu gaañu woote nongo dañu bëgg ñu topp ci soirée yeeg euh, concert yi am na nu mu fa demee ñu feebar laaj leen ma lan mooy feebar borom xol bu bon yaay xol bi day dagga leen sol lu gëmuma feebar te du hôpital du feebar laaj ma lan feebar borom xol bu bon yaay xol day dagoo leen sol rafet di ko romba su way jotee nga way lu neex ñi lay bëggee daa di kontaan

autrement anak laa la da lo tv lu leer waaw cakau ca kaw la war a doon waaw ay ousmane gangeek ñoom ndong ay ndongook ay gaa yépp ci biir barke borom touba non autrement nag ndongo ca kaw la télévision autrement ko def nak benn direct boo xamante ni damay nekk fii dugg ci télévision autrement par la force war ca kaw ay bëgg doo nga waay ca kaw waa dëgg neexul man ji may faal bëgg ndongo TV international maa ngi seetaan ak di déglu bëgg ndongo international TV la télévision autrement jàkkaw baax bi ci moom da koy laaj soxlaawa laaj ko dogaloo bëgg nonga doomu yaayo mbay caame yadda ke waaw fare yadda ndeysaan ndeysaan ndax boo dee waykat bi way baka paas bu baage tegi man Pa Abdou Thiat su ma bëggee ay information yu leer te wóor damay dugg ci youtube bi bind bëgg ndongo tv l'international ñu génneel ma ay xibaar yu wóor ak ay nouveau vidéo ak ay lépp loo bëgg xam ci àdduna bi ni muy doxee na ko xaar ca bëgg ndongo tv international ca kaanam ca kaw

sagal na sama mag ji laay way tey yéey taalibe sa Ibra yaa bëgg maam Seex ak waa këram faale bëgg ndonga la sama yaay faal wa deug neexul man jili mbay fall ca kaw bu ndongolo ma ngi setan ak di deglu beug ndong international tv la television autrement ca kaw yaa ngi jiin gànnaar woote naa sabala yaa ngi jiin jum jum jum yi leen daan dëggal muhammad sallallahu alayhi wa sallam borom màkk ak medina ku la sagal way ko seet sàttu sagal ay waay bëgg lu leer laa la wax la télévision autrement autrement nag laa la wax gëmuma feebar tëdd hôpital loolu du feebar laaj leen ma lan xol bu bon yaay xol bi day dagga del sol rafet di ko romba su way jotee nga way neex ñi lay bëggee daa di kontaan da Ndongo TV lu leer waaw nah, loolu ca kaw la war a doon waaw ay Ousmane Gangeek ñoom ndong ay ndongook ay gaa yépp ci biir barke borom Touba non oh, autrement nag bëgg ndongo ca kaw la télévision autrement oh, mais foo ko def nag benn direct boo xam ne damay nekk fii dugg ci télévision oh, autrement par la force war a doon ca kaw la ay bëgg ndongo waay ca kaw barke Sera Fall dëgg neexul man jili mbay fall ca kaw bu ndongolo moy bàyyi ma ngi seetaan ak di déglu bëgg ndong international tv la télévision autrement ca kaw ami nga pikin la sara ndongolo madame badaka la sara ndongolo kilangembu sangembu du yow Fallou la ngemb sa ngemb du ruus. du bindal moom galas. waaw boo wonee ya bindal moom galas. jële mbay. laaj ma ni may dëppee suul. mooy dëppee suul. xam nga ni may dëppee suul. xalifa mooy dëppee suul. boo amee soble neex na suul. eh mooy dëppee suul. boo amee kaani neex na suul. xalifa bay Wow, rokkas rokkas rokkas la lay defee jour Laurent Laurent nay di talla ni ay sant gi piare tak Jangan ah Kun dera Apa dia orang dong Ini, ni nak Tukulor punya joy Tanya lebut Dora yaay bëgg nongo nonga bëgg nongo di non sele bëgg ndongo international kooku lan naan tere bon tere ko soo ko gisee da ngay jaawale yàlla bu nu yàqu si moom maa ngi naan sele is ko du waliyo Dan koy tooñ ba noppi mu wëlbati ko di la jégaloo toppa sa ginnaaw tey raam xamul hmm. lu la mettee doomi yaay xamul lu la neex waaye ki ngeen bëgg jëmu jooju noonu la meloon mas na ni ma maam Cheikh ma ni ko ñang mu ni ma bul mas ndax ku fàttaliku soxor jo autrement la loolu jàkkaarloo bëgg doogo day nga bag borom jaamani télévision autrement de Ndongo Lo waaw loolu caaw la international na bëgg ndonga ki bëgg ndonga lo waaw waaw borom jaama ni ki mo bëgg frank kes ay bëgg ndonga ki bëgg sëriñ daam juufe bëggu no nga lay wayal en tout cas daal ko lu leer laa la wax la télévision autrement autrement nag laa la wax ndongolo tv lu leer waaw loolu ca kaw la war a doon waaw ay ousmane gangeek ñoom ndong ay ndongook ay gars yépp ci biir barke borom touba non autrement nag bëgg ndongo ca kaw la télévision autrement mais moo ko def nag benn direct boo xam ne damay nekk fii dugg ci télévision autrement par la force war a doon ca kaw la ay bëgg ndongo waaye ca kaw barke sa rafal man pa abdou thiar suma ma bëggee ay information yu leer te wóor damay dugg ci youtube bi bind bëgg ndongo tv l'international bu ko defee mu génneel ma ay xibaar yu wóor ak ay nouveau vidéo ak ay lépp lo bëgg xam ci àdduna bi muy doxee na ko xaar ca bëgg ndongo tv international ca kaanam ca kaw man pa abdou chat ma ngi setan beug ndongo tv international di ñaan tele bi jëm ca kaw ca kanam bak sen touba ay man jii di mbay faal ca kaw doom nay ndongoloo maa ngi seetaan bëgg ndongo TV international borom la télé autrement sur YouTube Instagram fépp kon gaay gaaw ngeen dem abonné ji ci bëgg ndongo international ca kaw TV borom jaamani kii moo bëgg setan ba gundoo nga nasional tv ma maa ngi fii si Allemagne seetaan ak di déglu bëgg TV international eh bu leen sappa de foofu la gëmuma feebar tëdd hôpital nongo li tax ñu bëgg la ci yow la ci yow la li tax ñu fonku la ci yow la ci yow la bëgg li tax ñëpp bëgg la ci yow la ci yow la li tax ñëpp fonk laa ci yow la ci yow la bëgg nongo international yow la yow la yow borom jaama ni kii moo bëgg nongo waay li tax ñëpp naw la ci ci nongo man gay dëkk tuuba di fans Ndongo maa ngi seetaan bëgg ndongo TV l'international ci YouTube bi sama gaay yi koj leen ko fa. laaj ma lan mooy feebar borom xol bon yaay xol day dagga del sol lu ko romba su way jotee nga way lu Salam man la soxna nabu borom Espagne ya, di wax nak sama gaay nak sak dimanche fii laa koy kar 13h30 bëgg ndongo TV international di wax sama gaay nak ku bëgg lu neex dégg lu neex gis lu neex affaire bi fii la bëgg ndongo TV international oh, autrement di wax sama gaay na ngeen ku bëgg a dégg lu neex gis lu neex affaire bi fii la macha allah. ñi lay bëggee daal di kontaan. yaay bëgg ndongo. borom jaama ni kii moo bëgg ndongo. bëgg ndonga bëgg ndongo loo. bëgg ndonga bëgg ndongo loo. bëgg nonga bëgg nonga loo Amadou Sy en tout cas daal ko lu leer laa la wax la télévision autrement autrement laa la wax da Ndongo TV lu leer waaw loolu càkkaw la war a doon waaw ay Ousmane Gangeek ñoom ndong ay gaa yëpp ci biir barke borom Touba non autrement nak bëgg ndongo ca kaw la télévision autrement mais foo ko def nag benn direct boo xam ne damay nekk fii dugg ci télévision autrement par la force war a doon ca kaw la waaye bëgg ndongo waay ca kaw barke say rafaal Thank you. mbokkum yaayu maam Cheikh Lo mbokkum yaayu Oumy Ndiaye taalibe Serigne Saliou bëgg nongo mbokkum yaayu Serigne Dame Diouf Lambaye Lambaye Lambaye bi kooku maam Thierno Diouf Lambaye mooy maamam ay bëgg nongo international bi waaw waaw bëgg naanu la waaw Gueye Niang fii ci Italie maa ngi déglu di seetaan bëgg ndongo TV international la télévision autrement la télévision mondiale. waa dëgg neexul man jili mbay faal ca kaw bu ndongoloo maa ngi seetaan ak di déglu coow li daa bëri lool international international tv la télévision autrement bëgg nonga doomu yaayo mbay caame yadda ke waaw fare yadda ndeysaan ndeysaan <laughs> ndax boo dee waykat bi way baka paas bu baage tegi jiit sañu naan dem di dafa chargé de mission dëggal jubal leeral quand c'est important c'est sur la chaîne télévision Bëgg TV international la chaîne télévision autrement toujours copier mais jamais du tout égal la chaîne télévision autrement de Assalamualaikum asalaamaaleykum mbokk yi man yaay Fall maa ngi déglu tey seetaan bëgg ndongo TV télé bi jëm ci kanam télé bi raw ci kanam te ñuy lool macha allah. fekk don nga doon to jiitu sab juddu da ngay am sa way wax ak mom re mu re su gene tooge la bala nga xam ci le bëgg nga nek ci ay tolof tolofé ki li ñaan sagal nga ma waaw alaykum wa senegal man la ababakar mbay cham waaw ñu gën ko xam ci mbay Tilène ndaysan ma ngi bëgg ma ngi déglu bëgg ndongo TV l'international waaw waa Sénégal moom la ñuy déglu waa adduna moom la ñuy déglu foo dem ci monde moom la ñuy déglu kon bëgg ndongo ca kaw bëgg ndongo ca en tout cas ak bëgg ndongo international moom lu waaye bëgg a xam ci Ndongo rek fa ngay dugg la seen télévision bi xew ci jamono waaw ak émission Ndongo ba faaw bu ko kenn de man faa jom Maroc maa ngi ci dëgg neexul rang muy bëgg ndongo international gundonga sama majelai waite yei yei tey yeey ibra iya bëgg maam seex me waa oi bai fale, faale la gaaw ngeen dem abonné ji ci international ca tv bu yaay faal du kaye di wayi sama gaañe ci bidaa bidaa bidaale waa borom jaama ni kii moo bëgg ndongo waa dëgg neexul man jili mbay faal ca kaw bu ndongoloo maa ngi seetaan ak di déglu bëgg ndongo international tv la télévision autrement. Tchau, jung yi leen daan dëggal Muhammad sallallahu alayhi wa sallam borom Makka ak Medina ku la sagal allez sama gaay chaque dimanche la ci Boobu Ndongo TV ngeen koy kal émission bu mag baa ngi noonu nga xam ci Ndongo nga ko kar foofu chaque dimanche ci TV l'international man Abdoulaye Ndiaye maa ngi nii wokam di ko seetaan chaque dimanche allez Ndongo TV ay ca bëgg ndongo ca kaw sa kanam la seen télévision de Ndongo Lo internet national ca kaw sa kanam ci lu baax ndam rek bëgg nga ma suturaal ne jiiri xaati woo bëgg nga ma gor saa ngi nii ne jiiri xaati woo en tout cas daal ko lu leer laa la wax la télévision autrement autrement nag la wax. gëmuma feebar tëdd hôpital loolu du feebar laaj leen ma lan mooy feebar. borom xol bu bon yaay man fajo borom Maroc maa ngi seetaan ak deglu beug ndongo TV international la scène télévision autrement borom jaamani kii moo bëgg ndongo xol bi day daga del solo rafet di ko romba su way jotté ka way lu neex ñi lay bëggee man galas afiya mbay a li may seetaan saa su ne saa bu ma toogee li may wétalikoo seen bi may wétalikoo mooy bëgg Ndongo TV international ah ñun waa diaspora bi ah moom rek la ñuy seetaan man Galas Afia mbay moom Ndongo laay seetaan kon di wax su may mbokku taalibe yéen ñëpp ah ku bëgg na ma déglu son papa Ndongo Lo bu neex ah del seetaan bëgg Ndongo TV international di leen wax ni bientôt rek suma clip bi ma way faloo ma jaay ba ma jaayu incha allah ci seenu bëgg ndongo TV international fa lay amee fa lañ koy tegee su génnee yàlla ñëpp am jàpp. di kontaan. da Ndongo TV lu leer waaw loolu ca kaw la war a doon waaw ay Ousmane Gangeek ñoom ndong ay ndongook ay gaa yëpp ci biir barke Borom Touba non autrement nag bëgg ndongo ca kaw la télévision autrement. mais foo ko def nag benn direct boo xam ne damay nekk fii dugg ci télévision autrement par la force war a doon ca <laughs> ay bëgg naa ko waay ca kaw barke Sera Fall. fay bu Mbour dimanche bu jot ci chaîne beugandongo TV international la kay kal fasiyene setan seetaan émission Ndongo ba faw wa avec beugandongo TV international sa kaw sa kaw kaw kaw a kaw liggéey waaye gis ci benn lay commencé borom jaamani ci benn groupe gaaw leen ngeen dem abonné bëgg ndongo international. ah sama gars yi dinañ ko fàtte de dimanche bu jot à partir de 15 heures waaw kon nag bëgg ndongo avec bëgg ndongo TV c' est la chaîne de autrement autrement autrement ca kaw ca kaw a kaw a kaw. wa deug neexul man jili mbay faal ca kaw bu ndongoloo mooy bàyyi si nga jëg ma ngi seetaan ak di déglu bëgg ndong international tv la télévision autrement ca kaw ami nga pikin la ndongoloo ma dem ba dakar sara ndongolo ki la ngemb sa ngemb du ruus yow falo la ngemb sa ngemb du ruus. du ruus moo taw ca Màkka bindal moom galas. waaw moo wane néew ya bindal moom galas. borom jaama ni kii moo bëgg na ko. galas jële bay. laaj ma ni may dëppee suul. nooy dëppee suul. xam nga ni may dëppee suul. Khalifa nooy dëppee suul. boo amee soble neex na suul. eh nooy dëppee suul. boo amee kaani neex na suul. Khalifa matu. nooy dëppee suul. kelematu nokas nokas. Hai begunung gowo, oi mau gini. Begunung go internasional wo. Ya bang papa no ngolo. No karena lain apa sur? Tidak ada tadi, tidak tadi, tidak tadi. Wow, rokas, rokas, rokas lain apa sur? lora. Lara. Nai sakit di talani. Nai sakit di piara sakini. Ah. jégal ma ko ñaari ndéeram wóoy jaaraama borom jaama ni kii moo bëgg ndamba aka ñoo am jom ñooñooy dina amee jom bàyyi tukulóor bu dee jooy la ñaa la tut axe di ko naxe jur man la Mbengue Seck dëkk mbakk Bawol su ma bëggee information yi leer ci bëgg ndongo TV laa koy kal dee leen ko fa kal yi dimanche lay def live yu am solo ci bëgg ndongo TV. rang muy bëgg ndongo international kii mooy Biram Filisa mooy faj bés bi ñu génnee muy Biram Filis Babacar Laay doomu yaay bëgg ndongo bëgg ndonga bëgg ndongo waaw man la Alaaji Cheikh Diagne Naar nekk ba Mauritanie di fan su man nag euh, dimanche bu nekk bu trois heures et jotee lépp lu ma jàppoon dama koy bàyyi dem si YouTube jàpp sama chaîne préférée muy bëgg ndongo TV international. la chaîne de télévision autrement sétane ak déglu sama émission bu mag boobu nga xam ne mooy Lo ba faw émission bi nga xam ne bëgg ndongo moo koy def te di la euh, tegal ay son yoo xam ni yu neex lay doon ak yu raar di la di la waxtaanal si Ndongo di la xamal loo xamul woon si Ndongo muy chaîne fans Ndongo Lo waaw di si woon ak fan si yëpp di leen wax ni chaîne baa ngi nii képp ku bëgg Ndongo Lo bi dina la xamal lépp loo bëggoon xam si Ndongo ak son yi nga bëggoon dégg si Ndongo Lo te nga koy wër ba léegi boo ñëwee fii di nga ko dégg. gaaw leen ngeen dem abonné ji ci bëgg Ndongo international. Cakaw TV. donc maa si woo fans yëpp di leen wax ni bëgg Ndongo TV international moo ko yor. di jino sale bëgg ndongo international borom jaamani kii moo bëgg ndongo kooku lan naan tere boo tere ko soo ko gisee da ngay jaawale yàlla bu nu yàqu si moom borom jaamani kii moo bëgg ndongo maa ngi naan sale is ko du waliyo dang koy tooñ ba noppi mu wëlbati ko di la jégaloo toppa sa ginnaaw tey raam xamul lu la mettee dom yaay xamul lu la neex waye ki ngeen bëgg jëm joju non la meloon man la yénig bu mam Cheikh ñang dëkk Pikine di déglu sele bëgg ndongo leen international borom jaamani kii moo bëgg ndongo heure bu bi génne ba léegi sax gaa yaa ngi ñëw mais man maa yàqamtiwul parce que dama bëgg dem ba Touba wax sama papa ba pare d'accord après bu ma jigee màggalu sëñ Fallou ba rek waaw am loo xam ci man la def daal metti na nag metti na trop parce que man li ma gën a metti man du ay sax gaaw a génne loolu parce que lu jot yomb waaw leen dong moom mu metti dama am ñu ma bëgg fi jin ma bëgg trop te ñi fi way ñëpp da ko may te lii gannaaw ba yàlla wee yonent bi sëñ Fall dama ko nàmp sama yaay li ma way nii maa ko moom ak li ma way si laay waat bi fii binduma ko dañoo dem toog studio mu bi sama bi génn ma ne ko feesul dugal ko ci waaw yàlla nag mooy maye xëyee bala ma def dara c'est la bëgg ndongo lay déglu pour dégg dégg dégg foofu laa koy dégloo e waa Sénégal waa Pikine di leen déglu c'est la bëgg ndongo mas na ni ma maam Cheikh ma ni ko ñang mu ni ma bul ma sa fàttalikoo ndax ku fàttaliku soxor Jom otur oh, malah lalu cakau lah doh bagi doh gor ayam bang. Udah saya rawal televisi jom otur oh, malah dendong wah lalu cakau lah internasional. Anak bagi nonga ah? kibu bagi nonga ah, lo wah bang. kenn kenn quinze vingt quinze ay bëgg ndonga kii bëgg sëriñ daam juufe bëgg ndonga lay wayal en tout cas daal ko lu leer laa la wax la télévision autrement autre nag laa la wax da ndongolo TV lu leer waaw lolu ci kaw la wara don ay Ousmane Gangeek ñom ndong ay ndongok ay gaay yépp ci biir barke borom Touba non autrement nag bëgg ndongo ci kaw la télévision autrement mais foo ko def nak ben direct bo xam ne damay nek Palafas dugg ci télévision autrement par la force wara don Jalema ca kaw la ku jalema ya yaa ma war a ya bëgg ndongo ndigal mc ngay am fofu maa ngi seetaan ak di déglu saa su ne bëgg ndongo TV international ci émission yu am solo yi muy def ci Ndongo ak ci artiste yu bari di la ñaanal yàlla jàmm ak xéewal jërëjëf sele bëgg ndongo waaye bëgg doo nga waay cakaw barke Seera Fall man Pa Abdou Thiat su ma bëggee ay information yu leer te wóor damay dugg ci youtube bi bind bëgg ndongo tv l'international bu ko defee mu génneel ma ay xibaar yu wóor ak ay nouveau vidéo ak ay lépp loo bëgg xam ci àdduna bi ni muy internasional. ko xaar ca bëgg ndongo tv international ca kaanam ca kaw gaaw leen ngeen dem abonné ji ci bëgg ndongo international ca kaw tv gaaw leen ngeen dem abonné ji ci bëgg ndongo international Thiakaw TV. Vous êtes en direct sur la chaîne télévision Beug Ndongo TV International.